dikkaat ci plateau matinal Allô Sénégal ànd ci Kajoor Cissé Kajoor maa ngi lay nuyu. maa sant yàlla mi ñu may ñu mbokk yi ñuy teewlu. Euh, dalal ak jàmm la revue web dañ koy tàmbali Kajoor ak équipe nationale du Sénégal en deuil euh, justement ñu ngi ko doon wax sànq ci revue de presse bi euh, ki nga xamante ni moo di Cheikhou Kouyaté moom nag moo ñàkk woy juróom bu góor. effectivement loolu nag fédération sénégalaise moom moo ko dal di. Euh, firndeel ci ab bataaxal boo xam ne daal dina koy fësal démb ngir euh, xamal nit ñi ne euh, kii di Kalidou Koulibaly lu tax may wax Kalidou sax Cheikhou Kouyaté jugee na tanière ba foofee ca Côte d'Ivoire ngir wutali fii ci Ndakaaru ginnaaw ba mu ñàkkee woy juróom wu góor loolee nag démb la amee Euh, moom way juróom wu góor woowee nga xam ne euh, mu ngi wuyoo euh, ci turu Banjogu Kuyaate dafa génn àddina ni ki démb fii ci Ndakaaru tey jii nag lañu ko nara rob di levée du corps bi nag daañu ko amal fële ca Grand Yoff ca mosquée daanaka jàkkay xaar yàlla ba nekk ca Grand Yoff ginnaaw loolu dañ ko fas yéene robb ca sëkk ya nekk eh, ca eh, yof eh, moom nag looloo waral kii di Cheikh Kouyaté nga xam ne nekkoon na joueuru ASC Yego foofee ci Grand yof mu ñu may ko nag ngir mu dellu siwaat fii mën a taxaw way juróom wu góor ñu di ci porox ndol rek jaale képp koo xam ne mbokk nga ci Cheikh Kouyaté naka noonu famille sportive bi di ñaan suuf woyof ci kawam lu jógee ci loolu ñu wax ci liberté provisoire bu Pape Sané mu mel ni journaliste bi ay mbiram dina leer naka ni ëllëg. ëllëg dafa nar a jano ak àttekat bi ginnaaw ba parquet ba daal di interjeté appel ndax juge bi di Maham Diallo dafa. Euh, sakku dafa euh, daanaka euh, téere woon ñu téye ko ci prison bi looloo waraloon ñu may ko bàyyi ndëgën nëgëndiku bi ñu ko may nii mu mën a def liggéeyam en attendant procès waaye parquet bi dafa interjeté appel boobu ngir moom lu mu bëgg mooy procureur bi nee na ñu téye kii di Pape Sané prison ni ki ëllëg nag euh, la ñu fas yéene euh, xam ba xam ndax dafay delluwaat euh, prison wala déet di fàttali rek moom Pape Sané ñu ngi ko tegoon loxo waa section recherche bu gendarmerie Colobane ñoom ñoo ko tegoon loxo ginnaaw bu mu liggéeyee foofu ca Walfajri ba wàcc war a ñibbi ñu di ko tuumal nag ne dafa fësal. ay xibaar yu teguwul ci dëgg yooyu la xibaar nag dafa ñeel poste boo xam ne defoon na ko ci Facebook am euh, mu doon ci euh, àddu nag ci euh, remplacement boo xam ne amoon na ci haut commandant bu gendarmerie bi ginnaaw ba ñu ko limogé moom nag dafa am ay xibaar yu mu joxe ñeel boobu lépp remplacement looloo waraloon ñu euh, tegoon ko loxo te xibaar yooyu mu ngi euh, ñeeloon itam teg gi ñu teg euh, événement yi amoon ca atum 2021 mars 2021 ba ni ñuy jàppee kii di Ousmane Sonko ca loolee la ñu ko daal di tege loxo. Pulse SN ñoom nag ñu ngi dikkaat ci coowalu trafic de visa bi nga xamante ni ñu ci doon dégg mbër mi di Lac de Guerre 2 waxoon nañ ko fi keroog ginnaaw ba ñu expliquer ne dafa am ku ko porte plante moom nag boobu ba léegi ñu ngi ko doon wut moom Lac de Guiers 2 nee nañu nag France la euh, téere ji ngir bañ wuyu bu ñu sukkandikoo ci en tout cas euh, site bi moom nag euh, mbër ni dañu ko wër ba sonn ginnaaw loolu la ñu gis ne mu ngi France lu ñu koy toppee nag bokk na ci association de malfaiteurs ak escroquerie au euh, visa loole nag euh, ñu mën koo fàttali rek ne ab payeur mhm. moom moo bëggoon dem euh, France mu jege nag kenn ku tudd salaam di jege ñaale kii di Lac de kooku nag ne ko Lac de dafa mën na ko yóbbu ñu déggoo ci 3 millions moom mu jot a lu toll ci 2 millions 500. Mhm. mu des 500 yi finalement yóbbuwuñ ko. te euh, xaalisam kenn delloo ko ko moo waraloon mu yóbbu plainte bi euh, ca commissariat bu Géejawaay jamono ji nag euh, moo xam mbër mi la di Lac de Guiers naka noonu jege ñaaleem bi di salaam ñu ngi leen di wër booba léegi dañ koy jeexalee ak yi ñoom nag ñu ngi xamal euh, ab manque d'affluence ci stade yi ci kan bi nga xamante ni ci la ñu ne. manque d'affluence boobu nag dara warulu ko lu dul euh, dañuy euh, askan wa fa nekk en tout cas rawatina ivoiriens yi dañuy gis ne billets yi daanaka day am ñu koy jënd dañ ciy jënd lu bari ba pare bëgg ñëw jaayaat ko. ak prix bu gën a jéggi dayoo euh, loolu nag dafa tàmbale woon nekk polémique euh, mardi bi passé euh, lundi lundi boog mardi waaw mardi bi passé waa CAF génnee communiqué ngir indi indi woon ci ay leeral lundi bi passé indi woon ci ay leeral waaye ma mel ni ba léegi yëf yi taxul mu mu leer askan wi ndax billets yi dañuy am jafe-jafe gis ko ndax trent 38000 spectateurs yoo xam ne moom la la ñu doon xaar euh, ci euh, match ouverture bi moo xam bu Côte d'Ivoire euh, bi match ouverture bi doxoon ci diggante Côte d'Ivoire ak Guinée naka noonu huit huit mille cinq cent personnes yoo xam ne ñu leen doon xaar ci match bi na doon dox ci diggante Nigéria ak Guinée équatoriale dimanche bi weesu nee nañu. Euh, li ñu njortoon ñoom waa euh, fa kaaf li ñu jo njortoon ci ay nit daanaka mujjul am ndax nit ñi dañoo wër tikkee ba sonn gisuñu leen ci réseaux sociaux yi sax. Mhm. Euh, ñu ngi doon ivoiriens yi ñu ngi doon ŋaññ yenn ci ay responsables yoo xam ne dañuy jënd tikkee foofu ba pare mujj mujjuñu ko mën a jaay ndax jëgg bi njëg li dañ koy yokk parfois ba dix loo xam ne dafay jar cinq mille mën nañ koy bu cinquante mille. loolu ah. waral nag. kenn mënuloon jot si yooyu les tickets ah loolu moom doy na waar fekkee noonu la fa demee moom dana métti lool pour que affluence bi nga xamante ni xëy na moom la ñuy xaar ci stade yi mu daal di am jërëjëf Kajoor Pape dalal ak jàmm sukkay na aussi maa lay sant di la gërëm si suba <laughs> <laughs> kii naa ci plateau bi nuyu nañ la dalal ak jàmm. nuyoo mbër leen nuyoo maa ngi lay sant di la gërëm. Mm. Pape Matam maa ngi lay sant di la gërëm. donc c' toujours en plaisir Aïcha di jàkkaarloo di yéen donc euh, j' espère que vous avez bien dormi donc tey nag euh, di mercredi comme tous les mercredis. Euh, dañuy daal di ñëw rek ci li nga xam ne mooy góor ay Aïcha si kanam. dalal ak jàmm alors euh, ñu jaale bu baax Cheikhou Kouyaté nga xamante ni il a perdu son père moment yi nag na nekk moment yu difficile en pleine canne